bonjour à tous et à tous merci de nous avoir suivis merci de votre fidélité et de nous rejoindre ci senego.com tey nag ñoo ngi fii ak euh, monsieur Cheikh Thiam Cheikh Thiam di tailleur bu nekk fii ci euh, Harlem monsieur Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi delloo nuyu bi Seydina. Mhm. mën nañoo xam kan mooy Cheikh Thiam. voilà Cheikh Thiam jeune sénégalais la juddoo Touba Mbacké yaroo fa màggee fa euh, jàngee fa métier après ja daara alxuraan dem jàng métier. voilà après bi ma beroo ma tenté benn aventure tailler la zone et voilà je me retrouve aujourd'hui aux États-Unis je sais pas si tu as besoin d'un développement pendant ce parcours la ah bien sûr que oui. voilà euh, je suis je d'une famille extrêmement modeste c'est-à-dire une famille pour ne pas dire pauvre comme par famille yu Tuuba rek ngay juddoo ngay juddu ci askan boo xam ni daanaka. seen loxo du jot seen ginnaaw boo juddoo ñu jël la dugal la ci daara yi nekk ci taqale ci bi ma génnee dugg ci marché Ocas di jàng métier ci sama nijaay bi ñuy wax Assane Samb mu jàngal ma métier bi mu demee ba ma mata beru ñu ber ma man jot a liggéey tuuti emploi euh, embauchement biir Sénégal à partir de quatre-vingt-dix-huit quatre-vingt-dix-neuf nag ci la ma tukki dikkale ma jël train bi à l'époque y avait pas encore des bus entre Dakar ko j'ai pris le train ci laa dem ko def fa quelque temps jóge Bamako dem Burkina Faso def fa quelque temps jóge Burkina Faso dem Togo jóge Togo dem Bénin Cotonou ma def Cotonou trois ans jóge Cotonou dem Nigéria def fa quelque temps jóge Nigéria dem ci nooru Nigéria bi côté Maiduguri jóge fa dem Cameroun def fa quelque temps jóge Cameroun dugg dëkk bu ñuy wax càdd finalement foofu laa def suma base nag à partir de 2006 ma installé wu carrément Tchad mu nekk sama fièvre mais à partir du Tchad bi yàlla dogalee bunt yi ubbeeku je faisais des valises et des valises sillonner un peu l'Afrique un peu partout en Afrique Guinée équatoriale Angola Afrique du Sud et cetera donc euh, voilà j'ai eu la chance de faire le tour d'Europe aussi le voilà je me retrouve aux États-Unis en plein cœur d'Harlem mm-hmm. sa première jour ci dëkk bii di United States euh, naka la demee woon. waa ça a été très facile parce que quand je suis venu aux États-Unis pour des vacances je suis venu des vacances jël naa sama visa yor xaalis bu bari ñëw dal fii ci hôtel bu mag biir Times Square def euh, une semaine ci hôtel bi doon tourist c'était dans le cadre du tourisme je suis et quand je bi ma ñëwee defi une semaine dem Chicago ci sama benn euh, grande sœur sama benn xarit. koo xam ne ñoo ànd ñëw fi ñu dem ci grande sœur am def fa trois trois semaines Chicago bi ñu ñibbisiwaatee moom mu jël décision wu delluwaat Afrique man ma ne damay jàng damay jàng situation dëkk bi ci la laajtee Harlem taximan bi indi ma fii xarlem ci place su Mafal muy booy bu booy bu active moom laay wooye sama idole sax ndax bi ma ñëwee buntu place am lañ ma wàcce ma dugg foofu mu wadd ma ma fay ko mu delloowaat ma xaalis bi bi mu a ñëw may delloowaat xaalis bi loolu du ma fàttee anecdote la après bi ma génnee ci place ma fa laa dugg ci laa gis benn daam buy jaay ay bazin une dame dino Ami Ndiaye elle est mauritanienne mauritanienne sénégalaise genre ma dugg foofu toog gis nit ñi ni ñuy jëndee bazin yi ni ñuy jëndee bazin yi bari mais bazin yi ñuy jënd bazin yëpp dañ ko doon jënd di ko jox GP di ko yóbbu Sénégal wala Afrique di ñawlu pour ñaw bi ñëwaat. ma gis nit ñi énergie bu ñuy dépensé ci loolu te man mën naa sama métier et ci la ma idée bi dikkalee. ma ne ma toog foofu tombeek muy taw comme nii rek bi ma toogee muy taw ba may bëgg a ñibbi vers dix neuf heures Ami Ndiaye daal ne ma ma ne ko damaa bëgg a ñibbi mu ni ma comme mu ngi taw bàyyi ma defal la Uber Uber mooy seen système taxi bi ñuy def ci affaire internet bi ma xaal c'était la première fois ma dégg turu Uber ma gis ni mu ko defee ci portable am dugg ci connexion bi daal di kii Uber géolocalisé ñu daal di ñëw ci buntu atelier bi ci buntu place bi ma dugg taxi bi yóbbu ma sama hôtel bi ma demee sama hôtel nag ma jël sama téléphone bëgg a xam qu'est-ce que c'est Uber lan mooy cause bi mhm. après laa dugg ci internet bi ma laaj lan mooy origine Uber fan la jógee mhm. ci laa gis ni y avait un jeune américain qui était en vacances à Paris mhm. dans les Champs-Élysées après d'avoir fait ses ses ses shopping mu taxaw ci Champs-Élysées bi muy taw moom it mu taxaw fa lu yàgg taw bi xaw ko sonal amul taxi ci la certain nag xam nga dans l'intelligence qu'il avait mu ñëw daal di créer Uber mu nekk solution pour ñuy wut taxi ba pare nekk solution nekk lu faciliter doomu aadama yi ba pare nekk njariñ pour moom ci la ma idée bi dikkale man tamit ma ne comme liaison bi nii la dikkee gis naa fii xel mi génne mhm. nit ñi ñu ngi jënd ay yére foofu noonu doon dem xam nga rek mhm. histoire bi noonu la dikkee ma ni man tamit je vais apporter une solution pour la communauté africaine qui se loolu laa li man après bu ma delloo damay dem bâcler samay clic ak i clac libéré sama lépp ñëw c'est vrai dinaa commencer à zéro mais ko jéem a def looloo tax bi ma delloo ma libéré samay activité li ma ci man a may ma maye ko mm-hmm. ma daal di ñëwaat nag pour installer wu bi ma ñëwaatee pour installer wu nag eh, foofu la idée bi tàmbalee ma ne waaw pourquoi man tamit li waa ji def nii ma def ko indil communauté africaine bi une solution mm-hmm. ñëw ñuy jënd tissu léegi di ko ñawlu fii dootuñu nekk di yóbbu Sénégal mm-hmm. parce que ay da ci doon am da jënd sa bazin jox GP mu dem ñaw bi du baax wala bu ñëwee muy am réparation en tout cas africaine yi nekk Amérique amoon nañu problème. et je commence à quand même combler mm-hmm. wax nii ban la woon. c' mille deux mille euh, dix huit. Mm-hmm. sama premier voyage mm-hmm. bi. ma delloo nag ci laa ñëwaat deux mille deux mille dix neuf. voilà comme ça je me suis. imposé. bi nga ñëwee fekk nga libéré sa action yi nga amoon. waaw yor naa atelier bu mag. Ah, Tchad atelier boo xam ni li ma fa am presque boo ko defoon ci conteneur di xaj. mais comme man j'avais vu que je devais commencer une nouvelle vie aux États-Unis munu ma woon a kii yëpp atelier bi mu ngi exister am na booy tchadien yoo xam ne dañ ma leen a joxoon maa leen doon jàngal métier. Mhm. ñu ngi fa am na ci ñu ma tuddee doom ñoo nekk ci atelier bi samay rakk nekkoon fa samay rakk yu jigéen ma ubbi woon ay salon coiffure boutique cosmétique ay entreprise ay petite moyenne entreprise bari hmm. li ma ci mën a libéré ma libéré ko hmm. li ci des ma maye ko ñi fa mën a toog toog di taxale man ma ñëw commencé une nouvelle vie qui a été quand même un peu difficile au début ok sa nouvelle vie boobu ndax amoon ay jafe-jafe oui oui j'avais j'avais des parce que quand je venais demeewul nu mu waroon demee parce que dégguma dégguma làkk bi dans un premier temps mais pour m'adapter était très facile xam nga différence Afrique ak Amérique Afrique soo jógee Sénégal di taxale ba tekki biir Afrique Afrique est une terre vierge ça veut mm. dire que tu t'es bien battu et mm-hmm. veut dire que loolu daf lay forger nga am benn intelligence boo xam boo ñëwee quand tu viens dans un pays comme les États-Unis mm. ça peut être beaucoup plus facile parce que fii lépp a tege mm. lépp a taxaw xel rek ngay nekk na dëkk boo xam ne y a pas amul côté bee moo gën a xumb fii moo gën a neex ñële ñooy gën a fay amul weer wu dee fii boo amee jom am fulla am fay fayda jël sa doole nangu ko use chaque semaine da ngay am dara. Mhm. dëkk la boo xam ne boo fi defee deux trois semaines rek lu waaye wax nga dugg ci parce que sa poste day daal di fees boo amee jom. Mhm. donc noonu la bi ma ñëwee ma xam ni war na maa imposer sama métier mais comme aw ma xaalis dama dem ci benn restaurant. Mhm. boo xam ne ay Sénégalais ñoo ma fa yóbbu may dem di raxasi bool nekk ci waañ bi di raxas ay bool euh, moom la ñuy woowee dishwasher di clean liggéey foofu benn moment bi ma liggéey foofu ba am depart ci laa jëndee ci laa lijjantee ba am benn machine dem teg ko sama kër defar sama ay flyers sama ay faire part di dugg ci salon africain yi di leen jox naan leen tailleur la mais comme mosuñu gis tailleur buy ñëw style bi mënuñu woon mënuñu woon a gëm de mm. début donc noonu la demee may am ñu may gëm benn benn di ñëw am ñu ma jàppale nag ay sénégalais yoo xam ni ay nit yu mm. baax ak i guinéen yu ma mm. jàppale xam naa loolu c'est une histoire toute longue histoire la mënu ma ci dugg mais am na fii ñoo xam ni jàppale nañ ma teel ma gëm déjà mm-hmm. noonu la demee bu ma ñawalee nit bu gisee ñëw bi du ko gëm su ko solee ñu ko laajee mu ni leen fii lañ ko ñëwee duñ ko gëm au fur et à laa def petit a petit mhm. nit ñi commencé à rejoindre ma dem ba xajatuma sama biir kër c'était a New Jersey mhm. ci laa obligé nag mhm. ma ne il faut ma dem nag li li nekkoon sama objectif mooy dem Harlem et dama daan jógee Jay-Z ñëw fii sol sama daal di dugg ci mbedd yi rek di laajte dégguma anglais dégguma dara mais damay taqale rek di laajte di laajte di laajte noonu laa def ba tombé ci place bi fekkoon fi góor bu baax bu ñuy wax El Hadj Gueye bi ma ñëwee ma ne ko damaa bëgg liggéey mu ni ma moom mën na ma jël mais dafa may jël di ma fay par morceau ma ne ko noonu loolu du woon sama objectif damaa bëgg foo xam dañ may luyee may fay weeru dee samay client samay client la déggoowuñu mais muy ku dëggu man tamit ma dëggu wax bu ñuy waxante mu dëgër noonu dëggu ci lan la ma bay léegi su ma gisee su ma gisee dara dinaa la dinaa la woo ma ñibbiwaat bi ma demee quelques mois plus tard la ma waat ni ma ñëwal am na place ni daal ci jàpp daal donc euh, c' est ce d' mhm. accord ci côté boobu di histoire bu macha allah euh, dellusiwaat euh, comme nettali nga ñu sa histoire au début berkaay ba dëkk oncle sambi bi mhm. lan moo la fi gën a marqué bi nga ñëwee ak style de vie bi nga daan dundee foofu ak fii. voilà ce qui m'a marqué et ce qui m'a motivé ce qui m'a vraiment encouragé de m'installer ici mhm. c'est la liberté c'est-à-dire liberté man je suis quelqu'un je vais être libre dans ma vie mm-hmm. et ci plusieurs choix parce que dafa am benn retrouvaille de circonstances boo xam ne qui se trouve à moi jàpp naa ne am naa beneen mission à part sama métier je dois faire partie de ceux qui doivent sensibiliser la jeunesse africaine c'est pas une question de donneur de leçon mais c'est juste une sensibilisation am na lu ma war a mën a def pour sama jeunesse réew parce que xam nga ñun suñu jeunesse bari nañu ay jeunes mais ignorance bi dafa inondé suñu suñu suñu réew yi gëm naa ni je suis peut-être une sorte de luciole am naa mission boo xam ne il faut ma nekk ci dëkk boo xam ne damay am kiiraange bu pare am liberté liberté bi nag lu tax liberté Amérique am na liberté mais du tax ci mbedd mi di saw ça veut dire liberté mi ngi tàmbalee ci xam li nga war a def ak li nga war a li nga war a def loolu moo fi gën a moo fi gën a motivé daal mm-hmm. vraiment muy réew moo xam ni mm-hmm. boo fi ñëwee boo dee nit mën a jàng ak nit di nga xam ni maanaam fii la sëñ Tuubaa waroon dëkk fii la Alaaji Maalik waroon dëkk mhm. pourquoi parce que defar nañu doomu aadama yi ba soo juddoo rek réew mi dalay jox sa àq ak sa yelleef li war ci yow da koy def pour nga war a man a def ci réew mi li war ci moom mhm. voilà parce que nit réew mënu ko laaj dara lu ko réewam defalul te loolu souvent mooy dox suñu mooy wuutale suñu réew yi ak réew yi ñu nekk mhm. donc euh, liberté boobu daal gëm naa ni lu ma fi neex la par rapport au début ba tey ndax gën nañu am confiance ci yow parce que gis nañu fi ay plusieurs modèles yoo xam ne yaa ngi koy ñëw. waaw clients yi moom au début euh, c' était pas facile. mais nag communauté africaine laay ñëwal mais li ëpp ci samay clients ou samay clientes guinéenne ivoirienne malienne tchadienne camerounaise. est ce que du li nga tàmm modèle boobu ak pays bi ni ni nga fa woon jaaroon fa moo tax. gars yi tout à fait. loolu am na ci mais li ci ëpp solo mooy ñoom c'est c'est des ñoom du ñu complexé par contre ñun suñu suñu suñu suñu waaree ñun ñoo gën a naqaree liggéeyal ci liggéey booy mënti def yan ci ci àdduna bi que ça soit nga nekk France wala Italie wala wala Amérique mm-hmm. boo ubbee sa petite et moyenne entreprise ci ñeneen nga mën a dépendre mais pas ci bi parce que ñun déjà duñu jàppalante mm-hmm. xam nga duñu teel a gëmante soo amul tur duñ la jox duñ la gëm osere Sénégal complexe boobu dafa nekk ci ñoom voilà xam nga boo amul tur lijjantiwuñu la hmm. par contre ñag yi ñoom lu concret la ñuy wër hmm. ñun ñii ñu wooyee ñag yi ñoom lu hmm. concret la ñuy su concret baax ñu ñëw jël dañ lay fay du ñu waxaale lu bari du ñu saboté en tout cas am na benn niveau d'ouverture boo xam ne ñoom ñoo ñu ko ëppale. donc looloo tax ma gën leen a préféré. par rapport liggéey bii ni nga defee importation yeeg exportation yi ci naka nga nan nan la liggéey boobu di def. waaw liggéey bi xam nga fii moom c'est c'est c'est c'est les États-Unis New York lépp am na fi mais am na yenn xeetu garniture yoo xam ne parfois dañuy am ay difficultés suñu ko clients yi indilee parce que xam nga léegi bu njëkk danga daan gis atelier tailleur mu daan am ay catalogue ak ay livre ay liifa ay diaspora léegi amatul. Mhm, mhm. par rapport ak explosion technologie bi. chacun ou chacune a son modèle dans son téléphone parce que Synap yeeg yooyu moo tax léegi parfois ñu indil la modèle boo xam ni tu as quand même des difficultés à avoir les accessoires mm-hmm. ce qui fait que on est obligé di commander à partir de Dakar mm-hmm. euh, parfois ñu am ci ay jafe-jafe mm-hmm. parfois nga jox GP GP bi faussé la parfois fii ñi am mariage ñëw à la dernière minute nga bëgg leen a satisfaire mhm. commander garniture yi ñu jënd ko Dakar mhm. lenteur bi xam nga négligence mhm. bi nga xam ne moo nekk ci sénégalais même ñi ngay yónni foofu pour ñu dem automatiquement jënd garniture bi ñëw emballé ko jox ko GP bi li ci war dëgg duñ ko def parce que ñoom xam nga fële xamuñu valeur u temps ponctualité amul ci ñoom donc GP bi tamit parfois mu dem vol bi raté wala du ñëw nga am danañ am ay jafe-jafe Euh, par rapport ak ça gis nañu am fi licence pour liggéey ndax nekk na lu yomb ci dëkk bi. waaw am fi licence pour am fi entreprise euh, yomb na jafe na ça dépend ci yow li nga bëgg a doon xam nga fii ñun suñu différence ak tubaab yi tubaab yi nii la ñuy def dañuy jubal moo tax seen àdduna yomb ñun dañuy dañuy dëngal. Mhm. moo tax ñun suñu àdduna jafe. Mhm. léegi kuy kuy jubal yow booy dëngal. moom bu xamul ni bu xamul ni dëng war naa am. Mm-hmm. moom buy jubal soo ko ci nax. Mm-hmm. da nga naan maa koy nax fekk yow yaa yow yaa yow yaa yow yaa def yëfi dof mm-hmm. ndax àdduna bi ñëpp nii la ñu war a doxee fii boo ñëwee. Amérique du dëkk boo xam ne mel na ni Europe ay contrôle ay affaire papier fi ñi quatre-vingt pour cent africains yi fi nekk ñu ngi liggéey te amuñu ay kayit. mais bu fekkee dañu fay bëgg a yor petite et entreprise. dangay am ay kayit man suñu borom dafa maa dimbali bi ma ñëwee avant may am un am naa am naa samay kayit voilà mm-hmm. parce que dama cee dox. Mm-hmm. donc atlé bi lépp lu mu war a am. autorisation administrative bi mu ngi fii cité bi reconnaître nañ ma. Mm-hmm. état bi reconnaître ma maa ngi fay samay taxes di liggéey catégoriquement aw ma benn. benn benn jafe jafe-jafe ci côté boobu. Euh, comme ni ko waxee léegi Sénégal euh, ñi ñu xam rek la ñuy am confiance yi moom. gis nañ fi ay ñoo xam ne ay borom tour la ñëw Sénégal est-ce que ñooñu aussi ñoo fii faral di ñëw di fi commander seen i ñaw ak yooyu. ñoom ñoom plutôt dañuy ñëw di ñëw di jaay daan nañ ko def. Mhm. ba tey ñu ngi koy def mu nekk marché bu vaste na. parce que mhm. Amérique yemul yemul New York. Mhm. ay Atlanta Washington dëkk yi ñoom ñu ngi ñëw di jaay. am na ci ñu may xam je les salue de passage samay xarit. ku ci mel nii euh, moo duggee héritage. Mm-hmm. moom ñëw na ba fii def fi ñaan vraiment di sama xarit bu baax a baax ji mm-hmm. création tamit bi ma ñëwee ci dëkk bi bi ma ne cëpp ci dëkk bi mm-hmm. avant may jënd machine di ñaawal sama bopp ci moom laa njëkk a nekk voilà mu dolli ma lu bari ma nit loo xam nga muy sama xarit di nit ku baax euh, métier mi am na sénégalais yoo xam ni ñu ngi ci ñu ngi ci joxe des bons exemples voilà donc euh, j'en profite de lancer un appel une fois de plus la jeunesse sénégalaise ko na nañu gëm seen bopp nañu gëm suñu bopp wax naa la ko sànq Touba laa juddoo yoroo fa màgge teg sama tànk ci bangu école. Mm-hmm. wër naa àdduna bi fu na dem naa fa ça veut dire que gëm sama bopp ginnaaw yàlla ak yonent bi mm-hmm. ak ñaanu waajur moo ma ko may nit ñi il faut ñu utiliser seen xel yi mm-hmm. boo amee réew mu mel ni Sénégal soixante dix pour cent wu population bi di ay jeunes coupe d'Afrique bi bi ñu ko jëlee nii engouement bi ma gis nii ferveur bi ma gis ak li génn ci énergie énergie boobu fu ñu ko injecté mu développé mais nous sommes hypnotisés suñu xel yi dañ ko jël di ko utiliser ci loo xam ne amul njariñ amul lu ñu njariñ réew mi donc loolu liggéey la boo xam ni ñu ñëpp war nañ ci am am nañu ci sax ay part de responsabilité ñu topp rek ñu bàyyi ñun suñu sort bàyyi suñu futur xalaatuñ ci topp rek ay politiciens ñu ñuy xaajale opposant mm-hmm. parti au pouvoir te kenn du ci wax dëgg mm-hmm. kenn ci ñëw waxu ci dëgg waxuñ ñi li ñu war a wax donc foofu lay foofu lay insister xamal jeunes yi nii ñun ñoo war a diriger monde bi ni ñu neexee mhm. ñun ñoo war a fexe ba monde bi ñuy fi ñu fi ñu bëgg mu jëm fa mu jëm fa parce que ñun ñoo ëpp mhm. donc mais liggéey bu liggéey liggéey bu rëy la laaj mhm. li wax ni conseil la wala da am ay ambition politique Euh, ambition politique, je, di pas, je ne dirais pas que j'ai des ambitions politiques, mais j'avais un ami, mm -hmm. un ami qui était le directeur de l'Institut français du Tchad. C'était un ami français. Mm. Il m'avait une fois dit, cher, mm. il faut que tu rentres chez toi, il faut faire de la politique. Mm. Je lui ai dit que je n'aimais pas la politique je ne la ferai jamais. Il me dit, non, ne dis jamais ça. Si tu la fais pas, elle te fera un jour parce que Dieu t'a créé politique. Tu es un homme politique, mais pas un homme politicien. Je sais pas si c'est quelque chose qui dorme en moi. Si tu le vois, dis <laughs> man damaa bëgg Sénégal hmm. Sénégal rek laa bëgg sama àdduna Sénégal defaluma dara su ma ko waxee nit ñi dañ naan ma lu tax ngay wax loolu mais man Sénégal defaluma dara parce que nit nit ku ñu defal dara hmm. mooy koo xam da ngay judd ci famille boo xam da ngay am parents yu teel a comprendre ñaari sénégalais ñoo am hmm. bi juddu am parent yu teel a comprendre ñu lay yee six heures du matin di la sang ba nga set diwla ba nga niin solo la yëre yu set takkal la benn sac def ci benn xaaju mburu bër ñu chocolat Mhm. ñu dugal ci oto yi yóbbu la école pour boo génnee récréation nga mën a lekk loolu yow booy dem boo duggee ci oto bi di dem ci école bi oto bi bu jàddee ci feu bi di nga gis benn xale bu ndaw boo xam ni peut-être yaa ko mag sa âge la wala yaa mag sol kilo bu tilim mhm. peut-être élastique bi boo ko tourné da nga ciy fekk ay teeñ ndax gëj a sanku solul ay dàll mi ngi yor benn potu tamaate ñaari ñaari bis biscuit ñoo ci nekk ak benn bekk suukar. ak benn vingt cinq vingt cinq franc boo xam ne ñu ngi ko sas cent vingt cinq pour moo war sëriñ bi. ñu koy jàngal loo xam ne àddunaam da koy da ciy par trop de temps et sans connaître le contenu man ci sénégalais yooyu laa bokk. Mhm. sénégalais boo xam ne damaa juddu nekk un enfant de la rue on m'a laissé voilà mais juste pour te xamal la yàlla am na beneen yàpp bu dul géej xel. Mhm. bi ko yàlla defalee doomu aadama rek la def nga war a doon ci kii taxaw. Euh, sam réew donc foofu laay profité nii sama réew dafa ma ñor moo tax lépp loo xam ne tey mu ngi ci man ma koy jàmbat di ko wax pour jeunesse bi suñ ma boolee fi ñu ko war a fi ñu ma war a joxe doole ji wala ma bokk ca bokkukaay bi ca prene fu ñuy jëlee décision yi mais pourquoi pas mm-hmm. d' nga nekk ci benn cité boo xam ne soo ko mosoon a dégg il y a dix ans ci ginnaaw wala cinq ans ci ginnaaw da dégg crime rek yow nga nekk fii euh, est sécurité bi am na ci dëkk bi Euh, waaw euh, ah sécurité mhm. amul fenn mhm. parce que dama doon dégg ñu naan Amérique li fay dee ci nit ñi ñuy rey nangam di joxe ay taux yoo xam ni mhm. nombre yoo xam ni c'était vraiment exorbitant je dis pas que ça n'existe pas mais kiy jógee Dakar di dugg ci oto di dem di Magali Touba accidenté faatu ci yoon bi c'est parce que dafa dugg ci oto jëm Touba accidenté faatu ci yoon bi fii ñi ñuy fetalante mhm. seen environnement ak seen clan yi ñuy def pour fetalante pour rey soo ci duggee rek nga ci bokk mais soo ci duggul doo ci bokk mhm. fii soo ñëwee di africain mhm. tu n'as absolument rien à voir avec les jeunes américains noirs ñoom seen mbir seen mbir la seen réew la ñu nekk seen i yëf bu ko lijjanti dafa am yoo xam ne fii kenn du ko fooyee seen affaire drogue yi ak seen i ak seen i gel boo ci duggee mhm. dañ lay rey amul sax wax yàgg na maa dégg ñu naan Amérique nit ñi dañu dee nañu dee mais ñëw naa fi fekk fi ay nit yu fi def 40 ans kenn rayu leen voilà mhm. def naa maa ngi fi bëgg a def peut-être ñaari at lu topp musuma gis ku ñu rey musuma ko gis gis naa fu ñuy fetalante mais musuma teg bët mhm. ku ñu rey parce que doxuma ci fu ma ko seen dama koy moytu mhm. maa ngi sama bureau liggéey liggéeykaay su ma génnee sama kër laa nekk donc jàpp naa ni bu ñëpp defee noonu war nañu war nañu mën a mucc ci ci ci problème bi mel noonu mhm. par rapport jamono ji gis nañ ne euh, Sénégal am na benn problème euh, ah no de doomu sénégalais yi nekkoon Brésil ñoo ngi fax di dugg ci dëkk bi ci côté immigration ban message nga am pour jeunes yooyu ak suñu autorités yi nga xam ne ñoo koy def waaw xam nga man li ma ci xalaat. Mhm. dama ci dama dama ci sant yàlla. et je remercie vraiment le Brésil. Mhm. parce que wax naa la sànq ni la bi may xale. Mhm. su ma masaan gis nit ku am carte d'identité carte d'identité. dama lay ñee passeport moom fu ma masaan gis ci àdduna ku ko am. damay jàpp ni mooy tekki nga. parce que ci condition yooyu laa juddoo. dama gis fii ay boy yoo xam ne Brésil la ñu jaar ñëw États-Unis te États-Unis nekk na dëkk boo xam ne képp ku yàlla dimbali ba nga teg fi sa tànk mooy boo toroxee ci sa àdduna yow la neex parce que defar nañ ko donc ñooñu damay wër ni bu du woonoon Brésil duñu mës a ñëw États-Unis ci àdduna ça veut dire Brésil mu ngi sauvé loo xam ne sinti nii c'est c'est c'est extraordinaire léegi nag ñu ngi ñëw ci biir dëkk bi di dugg muy chance boo xam ne yàlla dimbalee na leen ko tëjaguñu ko j'en profite de l'occasion may woo jeunes yi nga xam ne ñu ngi Brésil Argentine ku ci mën a góorgóorlu fagaru ba ñëw ñëwal Amérique a fi des. loolu Amérique ay caaxaan la ku leen di wax bu leen dem da leen di nax parce que ñun ñu ngi fi xam nañ lu fi nekk. nan lay état di def nag pour jàppale leen pour ñu organiser wu pour ñun lu ñu gën a bari ci dëkk bi mu gën a nekk lu utile pour ñun communauté sénégalaise bi loolu beneen débat la. Mhm. baax na ban message nga am pour tëjee ko lépp nag. waaw ba Seydina di kontaan ci yow. yow ngay nekk Sénégal muy site boo xam ne site bu am solo la site bu am doole. nga nekk depuis six mois nga contacté ma et on s'est connu seulement dans les réseaux sociaux nga ne ma dinaa ñëw New York su ma ñëwee dinaa ñëw ba sa place defal la interview ngay ngay ngay ngay ngay jeune bu dynamique gëm li ngay def c'est-à-dire loolu laa bëgg ñun jeunes yi ñoo moom réew mi ñun ñoo ko war a diriger kenn ku nekk ci pàcc bi nga nekk da nga cee war a dem ba jeex nit lu muy def rek nay nekk loo xam lu dëgg ci moom lu gëm ñu fexe yee ndaw ñi kenn ku ne outil bi nga yoree na nga ci profité nga lancé ci un appel pour ñu yee ñi pour ñu téye suñu réew mi mm-hmm. ñu daal di développé mm-hmm. d'accord merci beaucoup jërëjëf